sama numéro téléphone 77 511 25 25 cinq vingt cinq 25 Fatou Mbengue région de Louga Thiamène Kër Bakar salaamaaleykum euh, Fatou mbeng mo len di nuyu bu chamen nek région de Louga commune Thiamène Kayor di def transformation céréale mo len do nuyu don len beug présenter nak euh, produit produit de bëri na ay façon produit mais yeb le euh, produit local la amul ben produit chimique léegi dañu njëkk ci bi nga xamantene ni moy mango ndax mango bu ñëk lu jeexaan rek dootoo ko am tey nag nawet ak noor ak heure bu nekk boo soxlaa da ngay am mango bii faussaire mango la da ngay def sa ndox rek tibb ci faussaire bi def comme ni ngay def faussaire ñu koy wax grandulé ndax faussaire kon dañ ne turu jàmbur la kon grandulé mango moo nekk nii. bu ñu jógee ci grandulé mango bi ñu ñëw fii lii ngeer la pour soj te ngeer day raxas dënn te dafa baax tamit ci tension wàcc tension ngeer moo ci gaa te yëpp du poudre boo xam ne poudre bu ñuy segg euh, segg la ndax boo waxee poudre rek dañuy defe ne poudre bu ñuy segg la déedéet poudre bi kenn du ko segg comme ni ngay def faussaire nga koy def def sa ndox mu tàng tibb def ci jeex na amul leneen da ngay tàngal sa ndox tibb sa kudd comme ni ngay def kafe yëngal rek jeex na amul leneen moo nekk nii bu ñu jógee ci loolu ñu dem ci limon bi ba tey limon bi comme li ma waxoon ci mango bi rek te ku ne xam na ne limon moom macha allah muy ni momit eh, moom it brandy le limon ñu koy wax fasseer limon momi da ngay def sa ndox mu sedd rek tibb def ci amul leneen lo ci def dal di yengal naan fi fofu ñu jëm ci bisab bisab xonq muy ni momit batay benn la rek ni ñu ko liggéey muy nonu yeb bisab la amul benen produit bo xamantene ni def nañ ko ci lu bisab ak suukar amul leneen té du doon tamit luñu ségg comme ni ma waxon ci bi rek moo ci nek batay muy ni yeb nii la kon suñu réew mi li ki nek lepp mënañ ko dundé buñu buñ ci loolu ñu dem ci Dakar mu ngi ni momit fa faseer Dakar def ci ndox jël sa glace def ci yëngal naan amul leneen li batay mad la mad bo xasaan ba bu démé jeex na tay nak mad dañ koy yor at te produit bi mën nga ko té un an du arrière goût du def dara bu jeexé tay ñëwal ci boko soxla soxlaa kër fatou Mbeng boo ñëwee da nga ko fi fekk. lii nag moom euh, vas la vas. vas la waaw moo nekk nii am na euh, suñuy ingrédients daal lañ ci def lépp loo xamante ne nekk suñu mbay dong la diggante ay xorompole ay warga ay euh, naana ay citronnelle yooyu daal moom lañ ko liggéeyee ba nga xamante ne nii wax dëgg yàlla macha allah xam naa ku ko mos daal moom yaa may ki ko bëgg moom maa koy naxante ba mos ko waaye ki ko mos. dana ma laajte. mos doon mu ngi noonu. waaw. bii gis nga ko ba tey jingeer la moo nekk ni moom it faussaire la jinjeer. seen jinjeer. bii ba tey buy la moomit ba tey gis nga ko. faussaire la jus la. yëpp jus en poudre la. léegi nag biñ paree ci jus nag. léegi ñu jëm ci li nga xamanteni ni mom lañuy togo té mbax ci nit ñambi la kenn ku nekk xamna ni ne ñambi ma macha allah mm-hmm. gis nga ko mom lañuy def ni dañ ci def araw dañ ci génn suñu gom dañ ci def mu xam sa dañ ci def bonbon lepp dañ koy def ci li nga xamanteni ni moy mooy ñambi togu rek nak lañ ci xamone waye léegi nak dañ koy euh, transformer ba dañ ci am leneen heure bo soxla ñambi boo ñëwee kër papi leen di fekk ñu ñëw ci maïs bi muy mbokk nek ni baax na ci yaram baax na ci yah mbokk amul lo xamantene ni lu ko gën la ci nit surtout nag xalé ak mag bi nga xamantene ni mu ngi dem bay bëgg ñak doole bi la mu ngi ne gis nga ko liggey nañ ko liggey bu muccu ayib sha allah man nga ko denc lu mat at du def dara ndax dañ ko liggey liggey bu set te suñu matière première dañ koy tan ba nga xamantene ni produit bi dana mëna lii nag épice la pour ñu bàyyi bion yi ay aja ñoom ay mami ay ñoom ñëpp daal nañ leen bàyyi te jàppante suñu euh, nokkas bi suñu safal bi daal moo gën yooyu yëpp amul produit chimique amul leneen te boo ko toogee macha allah te mën na dem fépp am nañ bu jën am nañ bu yàpp am nañ yëpp boo ci soxla rek muy formation produit yi yëpp muy formation muy en muy détail loo ci soxla incha allah rabbi suñu Joko dang ci jot inshallah allah rabbi danañ jubal li batay laq laax bisaab la mu ngi nii jub nañ nawet ni di xawale wat lewat laaxu bisaaba ni amut ci momit def nañ ci lepp lo xamantene ni day dem ci laaxu basaab mo ngi ci da ngay tek sa kin mu bax nga laq jeexna mo ngi ni ñu dem ci kafe gi li mom kafe la base de ñebbe kafe gaa ngi nii amul leneen ñebbe kese la ñebbe nag bëri na luñ ciy liggéey euh, taabal bi moo xaw a xat te temps bi xoj ñu waaye am nañ ci yeneen yu bari yoo xamante ne dañ ciy liggéey ndax bu njëkk bu ñu waxee ñebbe akara lañ ci xamoon mbaa ndambe léegi nag loolu dañ ko jëlee ci ñebbe ndax ñebbe bi danañ ci def café danañ ci def cere laalo danañ ci def cere njóorndi danañ ci def woggu gerte danañ ci def mayonnaise omelette sax dañ koy def ci ci ñebbe bi waaw yëpp maa maa ko liggéey ak sama loxo. Mm-hmm. Euh, liggéey bi xaw na métti waaye nag gannaaw suñu bëgg-bëgg la mm-hmm. te euh, moom la ñu am amuñu leneen mm-hmm. euh, métti na moom ndaxte amuñu place bu ñu liggéeyee amuñu lenn loo xam matériel bi tamit des na amuñu matériel amuñu place ñu ngi tàllal loxo képp koo xamante nii sut nañu loxo rek ñu ngi koy tàllal pour mu jàpp lañu ndax ñun suñu liggéey rek moo ñu ñor lii tere laa loola. biñ joxe biñ génnee eh, araw ñaam bi ak araw maïs muy araw mboq bi araw dugub bi moo nekk nii biir cere laalo la cere laalo waaw moo nekk nii da dem jëndi bàyyeeguñ na lii eh, petit cola la petit cola poudre petit moo nekk nii ndax euh, petikola ku nekk xam na Petit Cola euh, moom it fi mëne ñu amee poudre Petit Cola noonu lañ amee lii poudre moom it ñettitu la kon ñun lépp la ñuy transformé heure boo soxlaa nettitu muy guddi muy bëccëg mu ngi noonu ñu toggkat yi gis nga mu ngi noonu waaw da ngay jënd rek ñëw defar nañ ko ba mucc ayib a lañ fi liggéeyoon pour présenter leen ko lépp nag sa loxo rek loxo rek lañ koy liggéey ndax euh, suñu bëgg-bëgg la te amuñu leneen ci la ñuy jàpp lu metti métti nag euh, ci la ñuy nekk rek ba lu ñu ci fekk rek ñu jël ndax dañu ndimbal la cay fekk loxoy borom looloo tax ñu di ci rey suñ bopp waaw produits locaux yi nag yi ma leen doon présenté léegi yemuñ ci ñu ngi liggéey yeneen produit ndax euh, lii nii la vitre la moom la ñuy fompee verre yi maa koy liggéey yi dama koy produire da ngeen a fekk bagage yi jeex bi tamit euh, kii la suñu setal madar la suñu setal yi tamit maa koy liggéey kon yemuñ rek ci produits locaux yooyu li cuub la li tamit maa koy liggéey yemuñ nag ci lii rek ndax dañuy defar euh, kii eau javel cuub bi nga ko ah maa koy cuub soxla nañ ko rek ci liggéey bi incha allah pare naa pour ànd koog ñoom liggéey muy formation bi muy euh, détail bi muy engros bi lépp lu ci waay soxla rek incha allah rabbi muy cuubeeg euh, madaar bi la vitre bi ak euh, produit yi yëpp lépp lu ci waay soxla rek incha allah rabbi suñu déggoo bu soobee yàlla danañ liggéey maa ngi tàllal képp na koo xamante ne nii yaa ngi may sur loxo maa ngi lay tàllal nga jàppale ma ci sama liggéey bi yemuñ ci madaar yi ngi ci la vitre yi eau de javel la ndox bi dañ koy dama koy produire eau javel grain bi euh, saabu yooyu yëpp dama koy produire sama numéro téléphone 77 511 25 25 Fatou Mbengue Thiamène région de Louga Kër